mbokki jullit yi mbokk yi ñi teewlu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bàyyi xel nag eh, ci ñaan waaye di sàkku it eh, ngeen bàyyi ñu ci xel di ñaanal képp koo xamee ne ci waxtu wi mu ngi ci jafe-jafe ak jafe-jafe bu mu mënti nekk yàlla na ko ko suñ borom subhaanahu wa taala eh, teggil yàlla na yàlla euh, remplacer andi ay xéewal ci barke nag weeru koor wi nga xamee ne moom la ñu nekk ñi nekk ci xéewal yàlla na yàlla euh, dolli ko te mu saxal ko loolu nag euh, continuer di woy ilaa yawmi diini mbokki jullit yi tey nag seen waxtaanu koor ñëw ci bakkan nga xamee ne suñ borom subhaanahu wa moo ko bind daal di koy nag euh, trasel yoon wi nga xamee ne moom mooy yoon wi jub waaye doomi aadama danay dox ba mu yàgg mu daldi nag euh, jàdd yoon wi su ko jàddee nag li ko war mooy mu taxaw seetlu ndax suñ borom subhaanahu wa mu ngi wax naan yaa ayyuha alladina aamanu ittaqullaha waltanzur nafsun maa qaddamat li gaddin wa taqullaha inna allaha xabirun bi ma taamaluun loolu sootu xashri la mooy aaya numéro 18 bu nee na yow jaam bi del dem bam yàgg nag nga taxaw di seetlu lan nga jiital euh, pour yawmal xiyaam boo ñëwee nga daal di ko fay fekk ku jiitali caaxaan boo demee doo fa fekk euh, dara ku jiital nag ay yiw boo demee daa ko fa euh, fekk mbokk yi bakkan dañ koy sellal waxuma nag weeru koor nga sellal suñu koree rek nga dal di nekkaan nag ci li la neex loolu yab sa bopp la waaye yab suñ borom subhaanahu wa taala la bakkan dañ koy sellal comme ni ko buur waxee ne wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi loolu suratu fatiri la mooy aya numéro 18 bu nee na képp koo xamee ne dafa sellal bakkanam jaat yoon wi jub mu yoon wi nga xamee ne moom la sallallahu alayhi wa sallam tracé woon kooku na xam ne boppam la ko daal di def loolu la wolof di lépp di wax naan lu waay def rek boppam moo tax buutam subhaanahu wa taala wax ne faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi loolu suratu fatxi la mooy aye fukk koo xamee ne dafa jël nag moom yoonu di jël yoonu ñàkk topp suñ borom jël yoonu bañ sellal nag euh, bakkanam bi kooku na xam ne boppam la ko daal di def te yoon woowu nag kenn moo fa nekk mooy chef mooy buum di buum mi kooku moom mooy seytaane moo tax boo demee ci sooti Ibrahim ci ay ñaar fukk ak ñaar buur dafay wax ni wa qaala seytaanu lammaa qudiya al amru inna allaha waadakum waada al xaq wa waadtukum fa axlaftukum wa ma kaana lii alaykum min sultaanin illa an daawtukum fastajabtum lii falaa taluumuuni waluumu anfusakum seytaane dafay wax gaa yi ne tey day moom duma permettre kenn muy wax seytaane moo ma ci xiroon yow seetloo woon sa bakkan bi toppoon nga sa nafsu di def li la neex bu ñu waxee nga ne seytaane moo ma ci xir seytaane nag mu ngi nii di dugal pelentam ca suñ borom subhaanahu wa taala ne bu ci kenn nag euh, tudd ndax yow yàlla yaa ma bind yaa leen bind nga digal leen pour ñu sellal jaar ci yoon wi jub bañ a topp nag seen bànneexi bakkan ñu lànk daal di may topp nag taman bi ma leen wax ne nañ ma topp ay wor laa ci jublu woon ñoom ñu xam ko daal di koy nangu kon nag tey bu ma kenn yedd ku nekk na nga yedd sa bopp gisa doomi aadama dafay topp ndigalu suñ borom bàyyi ay tereem loolu moom mooy sellal loolu la wax sellal waaye nekkul weeru koor nga topp ndigal li su koor yi jotee ba keroog baraxlu nga nekk ci la la neex loolu du sellal waaye yabaate la moo tax suñ borom subhaanahu wa taala boo demee ci sootu naziaat yi boo demee ci ay ñeen fukk ak ñeen fukk ak benn bu dafay wax naan wa amma man xaafa maqaama rabbi wa naha nafsa an il hawa fa in al jannata hiya al mawa képp koo xamee ne jaar na ci yoon wi jub nekk ci ragal yàlla jël bakkan mi nag xañ ko bànneexam kooku yowmal xiyaam ala kulli xaalin dafay dem dafay dem ajjana moo tax bu ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha ani anil hawa fa innal jannata hiyal mawa kon nag mbokk yi faw doomi aadama bi dafay xañ bakkan bi kii jigéeni jaambur la nga bacci ko fa kii góor jaambur la nga wàcc ko fa lii alali jaambur la nga bàyyi ko fa lii kat ay mbisika kii ndaw ràbbin la nga wàcc ko fa ba ci weeru koor wi naxaate yi théâtre yi nga xamee ne heure ndagu ñu tegal la ko waaye bu ñëwee ba ca bëccëg ba dugale la yépp nag ci youtube bi nag nga fas yéene nag yow di ci dàq koor dëgg-dëgg sa koor moom duñ wax ne baaxut waaye nag amoo tiyaaba yu bari am na ci ñoo xamee ne sax dañuy seetaan théâtre ba ñuy nodd ñu déglu nodd bi tuuti coupé te continuer seeni théâtre fa la ñu nekk tusubaar ba tàkku tàkkusaan jot dëgg-dëgg loolu pertement la su fekkee ne yow bi ngay xëy ci koor gi da nga amoon san jàppal ne sa soixante dix yëpp daal di nay naaw ndax ay mag yoo xamee ne ci caaxaan lañ nekk ay mag yoo xamee ne li ñuy wax dara du ci dëgg même bu fekkee ne yow danga nga naan réalité la waaye du dëgg ndax ay mag la ay muskalaf lañu am na leneen lu leen waroon lu jaxasoo beeg lënkaloo bi naan dañuy théâtre yow nag nga ñàkk fayda ñàkk fayda gu tolli nag ci fi ndigalu suñ borom weeru koor nekk weeru promotion ñaata bakkaar nga fi def bi nga juddoo ak léegi ñaata rëcci-rëcci moo fi nekk ñaata tooñ nga tooñ waroon a xalaat ci loolu nag fa yéene nag toog yor sa kurus wala la sa sijaada wala nekk ci sa kaw divano muy kanape di baalu nag suñ borom di tudd suñ borom di ko sant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi amoo looy def lu dul jël sa temps yépp nag passé ko nag ci sketch yi ak théâtre yi dëgg-dëgg war nañoo xalaat yow yaay kan moo tax buur bi subhaanahu wa taala wax ne afara ayta man ittaxaza ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi gisaawa fa man yahdihi min bacdillahi loolu suratu jaasiya la mooy ay ñaar fukk ak ñett jël sa dégg-dégg bi yépp bàyyi ko ci théâtre yeeg sketch yi jël sa gët yi théâtre ak sketch rek nga ci seetaan rawatina ci bëccëgu weeru koor sa xol bi day dem ba abonné ci théâtre yi daanaka boo seetaanee épisode un yaa ngi xaar deux bi booy julli sax sa xel maa nga ca am na ñoo xamee sax ñoom bi gën a garaaw la ñuy def dañuy bàyyi théâtre bi di daw ñu taxaw nag bëgg a julli benn xel bi nekk ca théâtre ba beneen xel bi bëgg a nekk nag ca juli ba loolu mooy yow da ngaa bëgg a wax ne ñaari xel nga am te nit nag amul ñaari xel maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi buur nee na amul benn nit bu ma defal ñaari xol ci biir euh, dënnam bi képp ku ci mel rek boo moytuwul mu mujjee nekk euh, seytaane wala mu mujj nag nekk euh, nafiq mbokk yi moo tax buur ne inna nafsa la ammaaratun bi suu'i loolu suratu yusuf la mooy aaya juróom fukk ak ñett bakkan moom bànneexam rek la lay wan soo demee ba jël sa kurus pour sellal mu ne déedéet seetaanal théâtre bi deux minutes épisode bu bees bi génn na nga daal di topp loolu moo tax buur ne balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqaa maazira loolu suratul xiyaama la mooy aye quatorze ak quinze buur mu ne doomi aadama bu ne yaa gën a xam sa bopp bu dee yow jullit pur nga jullit buy sellal ci tere suñ borom yi te topp nag ay ndigalam xam nga ko bu dee nag jullitu falaa falaa nga booy bu nekk ci digg bi yow bokkoo ci jullit pur yi bokkoo ci yéeféer yi mooy yow naa fex nga yaa ko gën a xam sa bopp bu dee nag yow sa jullit nag weeru koor ba weeru koor la it loolu it yaa ko gën a eh, xam sa eh, bopp moo tax buur subhaanahu wa taala di wax naan wa shamsi wa duxaaha wal qamari iza tallaaha wa nahaari iza jallaaha wa layli iza yaxshaaha wa samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa ma taxaaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha mbokk jullit yi aayu doomi aadama bi war a bàyyi xel bis bi jot nga jàng ko romb ko waaye de ko bàyyi xel suñ borom gëñ ci jant bi giñ ci weer wi giñ ci bëccëg bi giñ ci guddi gi giñ ci asamaan si giñ ci suuf si waa lan borom bi nag di wax mooy bakkani doomi aadama su ko sellalee bu ñëwee ca moom mu daal di koy fay waaye nag bu ko sellalul su ñëwee fa moom nag mu daal di koy fay ba tey fay bu njëkk bi mooy sellal nga ko nga am ajjana nag dëkkaale ak yonent bi sallallahu alayhi wa nga ñàkk koo sellal dëkk ak seytaane ca biir euh, safara kon nag ku nekk yow yaay tànnal sa bopp li la neex soo buggee ajjana xam nga ni ngay def soo bëggee tam safara xam nga ni ngay def loolu mooy qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla taxe na ki nga xamee ne dafa sellal bakkanam bi taxe na ki nga xamee ne dafa woy ndigal yi bàyyi tere yi waaye nag perte na eh, ki nga xamee nag moom au lieu mu tudd yàlla waaye moom ci théâtre rek lay topp di tudd loolu yépp musiba la kon nag mbokk yi yal na yàlla def si ñun dégg ak topp def ko ci yéen yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne lii mooy dëgg ñu ñëpp ñu daal di koy eh, topp moo ni ay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la ñu wan ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki Bergamo ak li ko wër tey di dimanche fukki fan ak ñett ci weeru koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar te loog nag avril deux mille vingt waxtu wi nga xamee ne ci lañuy ñuy arrêté xëdd ci Bergamo ak li ko wër mooy quatre heures trente cinq minutes boo ci tegee fukki minutes muy quatre heures quarante cinq minutes ci ngay julli fajar waxtu wi nga xamee ne ci la ñuy ndogu mooy vingt quinze minutes boo ci tegee nag juróomi minutes nga daal di julli timis muy vingt heures vingt minutes allahuma laka sumt wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma axartu bismillah